sa xolo ni set setooyi set set set set set set set setlu luna la ah. jërëjëf sëñ Abdou <laughs> Abdou Thiam ci technique bi Yacine ci digital gi euh, ci réalisation bi Hadj Ndiogou Diène ñu koy gërëm bu baax di ko sant pencoog RFM mbokk yi ginnaaw bi ñu delloo nuyu leen euh, ziar bu baax euh, ñi jogandoo ak ñun RFM matin ak léegi waaye it euh, ñi dabe ci antenne bi yàlla na yàlla defal leen jàmm defal ko seen i njaboot defal ko suñu réew mii nu bokk Sénégal di leen ñaanal di sàkku ñaan ci yéen ñëpp ak ñun ci jokkoo bi Babacar Ba bu forum du justiciable sëñ Babacar ñu ngi ziar. El Hadj Assane maa ngi lay ziar di leen nuyu di nuyu seen auditeurs yi. Euh, Babacar baye jité forum justiciable nek of nak <laughs> déjà xamna ci yeneen jamono dinañ waxtaane nak wala yéen du ngeen faral di wax noné ci seen doxi nak yoyu euh, amna solom déet lu ngeen fi liggéey gum ndax wàññi na fi njublang gem déet. <laughs> waaw waaw xam naa ni euh, du ñàkk peut-être ay ay bés yi ñuy <laughs> dégmal. Uh-huh. donc xam nga ñun moom dañuy liggéey ak obligation de réserve. dëgg la dëgg la yoo xam ne moo dënk. Uh-huh. donc ba tax na pour ñu wax rek. très bien. xëy na day fekk loo xam ni bon euh, membre yi ñoo ko décidé. wala hmm. ki nga xam ne moo ko jiitee. oui euh, moom moo koy moom moo koy décidé donc dafa euh, am ay textes yoo xam ne moom moo ñu tënk. Hmm. ba tax na xëy na comme ni nga ko xamee rek nous sommes soumis à une obligation de de réserve. très bien. Ah sa mbootaay forum du justiciable génne bataaxal di wax ci wàllu d' abord ñu moytoon na sa xel justice lan moo tax ngeen def alerte bu ni mel. waaw xam nga El Hadj Assane. Euh, boo xoolee justice te loolu je pense que ni képp kuy acteur euh, tey d'accord na ci mooy que ni justice dafa nekk ponk bo xamni euh ponk bu am solo la ci ci réew mais également mu nek ben ponk bo xamni tay tey mën nañu wax que ni euh, amul tay ben justice ci réew mi mhm. bo xamni dafa dafa dafa am perfection absolue mhm. donc justice d'ailleurs comme nous le savons, c'est une œuvre humaine donc ay nit a ñoo euh, donc textes tant lois. Mhm. des chartes justice mhm. ni lay donc justice donc euh, perfection perfection euh, pour mu pour pour une perfection absolue. Mm, mm. donc ci misaal rek boo kay mais bëgg gi ce pas tout à fait ma ma pour pour pour mm. France li ci ëpp euh, inspiré France en 2017. Euh, octobre 2017 déjà dañu lancé des ay travaux pour voir comment nous ñuy gën justice et euh, bi ces travaux yooyu euh, travaux yooyu moo ngi entré en vigueur le 1er janvier 2020 xam nga mhm. la lañ naka lañuy def ba seen justice bi gëna gëna de dëgër mhm. naka lañuy def ba seen justice bi gëna accessible naka lañuy def ba justice bi liggéey ci transparence am am une indépendance absolue mhm. donc loolu je pense que ni euh, dafa nekk loo xam ni euh, à chaque fois dañ ci war ci dem alors mhm. boo gisee tey ñu génne suñu communiqué euh, parce que dañu dañu dañu def benn taxaw seetlu ñu xool que jamono yii yi nga xam ne tey justice bi ñoo ngi koy ŋàññ li ci ëpp boo xoolee benn question moom mooy ñëw mooy que ni est-ce que tey le justiciable mhm. est-ce que ñi nga xam tey ñoom ñooy les citoyens am une confiance absolue par rapport aux justice donc ñu ñu mm. jàpp ne tey euh, dafa am rupture de confiance entre le justiciable et la justice mm-hmm. Et loolu nag rupture de confiance boobu tey xëy na moom moo waral coow yëpp parce que tey El Hadj bu fekkonte ni le justiciable dafa am une confiance absolue euh, mm-hmm. par rapport aux justice je pense que ni euh, bu amee lu ko metti mm-hmm. en fait du xel ñaar ne xaaral ma saisir la justice mais boo gisee parfois le justiciable ñu été naan est-ce que jar na mooy saisir justice suma fa demee est-ce que dinaa am gain de cause wala wala boog su ma fa demee est-ce que samay droit dinañ ko respecté donc loolu je pense que ni bu fekkonte ni questionnement yooyu le justiciable nekkul ni mu ngi koy posé wu kon amaana xëy na euh, li ñuy gis nii fan yëpp duñ ko gis. donc hmm. moo tax ñun ñu génne benn communiqué boo xoolee ci communiqué bi déjà on est en train de dañuy ñëwaat ci ay principes ñëwaat ci lan moo war a nekk tey le rôle de la justice. Hmm. naka le justice war a mun a doxee ba nga xamee ni tey dafay garantir le justiciable l'univers en procès qui est juste et équitable mhm. euh, naka la ñuy def si vous ki nga le juge vous buy rendre décision décision bi mën a décision bo xam du am soupçon parce que mhm. comme niñ koy savez,

Mhm. xaw ma ndax xam nga fi may waxee c'est-à-dire que fondamentalement dama ci xalaat ma ne waaw yow askanu lëmm ñu tànn ci ab ab ab dànk bu ndaw ne la kaay àtte jaam yi kooku boo ko mhm. deful ak njub ak sa aqulaay taalaa yow yow yow lan mooy sa àtte yow waaw loolu nag euh, lu lu lu en lu jafe la parce que xam nga euh, gis nga euh, la liberté cest à liberté dafa nekk loo xam dafa dafa fondamental parce que pour man boo demee bay déjà pour nga arrêter nit ki pour nga teg ko loxo Euh, boo xoolee tey loolu moo tax suñu code de procédure pénale El Hadj Assane dañ naan la hmm. la détention hmm. elle doit être l'exception hmm. la liberté moom mooy le principe donc tey euh, liberté ce qui n'est pas le cas xam nga Sénégal taxi yi day nekk càmmoñ jëf ja nekk gauche euh, nekk ndeyjoor tey ji lu ne ñoxor njaay ñu jël nit ñi ne xër sànni ci kaso bi waaw loolu nag dañ koy loolu ba fépp fees d'ailleurs on parle même de de de de feesaayu kaso yi waaw loolu nag moo tax boo le forum du justiciable je pense que ni depuis biñ ñu ko créé ba léegi. Mhm. bokk nañ ci sur le fait que aujourd'hui euh, dañu am benn politique euh, criminelle boo xam ni. Mhm. dañuy insister trop le plus souvent sur la répression. c'est-à-dire mhm. ni nga xamante moom le législateur euh, code de procédure pénale wax que ni la détention elle doit être l'exception et que le principe mooy la liberté en fait li ñu le contraire parce que hmm. Sénégal aussi ñu wax ko xam nga les mandats de dépôt sont délivrés de manière systématique hmm. et je me rappelle à l'époque euh, le ministre bi fi Ismaël Majorfan, a Madior Fall hmm. bi ñuy def euh, bi parquetier yi doon di def seen seen genre lël yooyu nga le plus souvent dañ pour définir seen politique pénale am na benn circulaire bi mu donc di invité ñi nga xam les chefs de parquet à ce que ñu xoolaat naka la ñuy délivrer les mandats de dépôt parce que Sénégal mmh. comme ni ñu koy faral souvent les mandats de dépôt sont délivrés mmh. de manière systématique donc loolu aussi du def leen lu dul gën a euh, euh, feesal prison parce que mmh. encore une fois de plus nit ki El Hadj Assane bu fekkente dafa représentation de garantie euh, en justice Nous présenter ay garantie de représentation en justice mu ñu xam que ni kii Sénégal la dëkk kii euh, am na fi njaboot kii am na fi liggéey kii buñ ko bàyyee du daw. Mhm. man dama jàpp que ni li ma gëm mooy que ni nit ñooñu tey bu dee yoon daf leen soxla au lieu que ngay délivrer un mandat de dépôt. Mhm. di leen yóbbu kaso di leen fa teg war nga leen mën a bàyyee ñuy circuler librement. war nga mhm. leen mën a bàyyi ñuy dox seen soxla ba heure boo xam ne yoon daf leen soxlaa ñu ñëw euh, présenté wu. donc loolu benn man dama xalaat ni fondamentalement problème justice Sénégal ak yeneen réew yëpp mooy le parquet mooy l' exécutif c' est à dire que euh, bu ñu bëggee indépendance justice foofu la ñu war a gën a travailler c' est à dire fexe ba ñetti pouvoir yi ku ne nawloo sa morom parce que nañ ko wax ca ca ca dund euh, politique yi nag ñoo sonal justice yeneen cas yi ordinaire yëpp ñu ngi koy laqarte ci tribunal Sénégal yi kenn du dégg coow mais bu nee benn aji politique rek voilà mu goog loolu loolu loolu dëgg la El Hadj Assane parce que tey yàlla xam na ni boo demee tribunal chaque jour que je fais ñu ngi rendre ay décisions yo xamni avant mhm. amaana du am coow. mais bon. euh té léeg borom sax mëna na baña and ci ci daan bi mais mu muñ loo ko suñu borom yow nga nek ku siiw rek ñetti fan ñu lijjë laqal say mbir génné sànni ci biti mbaa ñu denc la fa. loolu nag mooy ni système bi tëddee. dañ ci hmm. que ni à chaque fois parce que bo xolé coow yi fi am yépp c'est parce que c'est les c'est les procès yo xamni ni. Hmm. politique lañ ci lañ ci lañ ci top. mais pour ñëwaat ci ci li nga wax légui muy le parquet xam nga parquet bi aussi ñun ni ñu tëggee suñu système judiciaire. moy que ni parquet dañ ko rattaché ci ki nga xam tey le ministère de la justice. Mhm. le ministère de la justice euh, tënku ci le pouvoir exécutif donc ñun système boobu problème. am maintenant il faut bu fekkee ne dañu bëgg a changer loolu dañu bëgg a def de telle sorte que ñu am benn parquet boo xam dafay autonome. Hmm. donc il va falloir que à l'état actuel ñu changer li nga xam te moom mooy moom mooy moom mooy texte yi. boobu est-ce que loolu mooy li gën amul beneen risque aussi. parce que autant autant autant on reproche aux politiques euh, ñu ñu hmm. ñu ñu leen di weñ seen loxo léeg-léeg ñu baal ma wax dëgg yàlla parce que ay kilifa hmm. la ñu magistrat yu ci bari. Euh, autant aussi on peut reprocher à un magistrat un sénégalais lambda boo xam ni moom. Euh, ab Dem rek motax mu àttee nam ko nexé parce que ger nañ ko wala jox nañ ko li mën na dal journaliste bi dal keneen ci wàllu njubadi rek euh, nit ki nga xamni ni du am benn pression politique. tout à fait xam nga motax déjà euh ñun bo xolé dañu def ay propositions bi njëkk sax mooy tani euh à défaut de couper de couper le cordon ombilical ci li hmm. le parquet au ministre de la justice. mais actuellement El Hadj Assane parce que tey boo xoolee pratiquement ci àdduna bi ñëpp noonu la ñuy seen système judiciaire noonu lañ ko tënkee. daay dañu am benn parquet boo xam ne dañu ko rattaché. Mhm. Euh, ci parce que xam nga tey le chef de l' état moom mooy définir la politique pénale. Mhm. politique pénale boobu ki koy doxal mooy le ministre de la justice. ministre de la justice bu koy doxal daf koy doxal euh, par le biais euh, des procureurs. maintenant bu fekkente ni tey ñun suñu système noonu la tëggee mais mun nañ indi ay prox ndoll mun nañ indi ay méthodes yoo xam ne tey dañuy def de telle sorte que mhm. pouvoir yooyu nga xam ne procureur am na ko mun nañ ko wàññi lu ci mel ni tey El Hadj Assane le juge des libertés. Mhm. parce que xam procureur quoi qu'il en soit le le procureur déjà il c'est une partie au procès. Mhm. Madame procureur de faut le fêter, faut le la mhm. faire. c'est l'avocat de la société. maintenant bu qu'il ni procureur des procureurs Nous les magistrats sommes les juges nous xam nañ ko yàgg nañ ko dénoncer man yàgg naa participer ci ay euh, séminaires magistrats mais le plus souvent ils ne sont pas à l'aise à ce que dit. le procureur bi c'est une partie au procès ñu mën ko jox euh, le pouvoir à ce que muy décider hmm. sur la liberté des gens maanaam koo xam déjà am na foo xam ne foofu la féete nga ne ko ah yow de euh, nit ki ñu indi te yoon di ko décider est-ce que da ngay délivrer mandat de dépôt ou pas hmm. moo tax ñun hmm. ci suñu réflexion ñu ni nañu instaurer li ñuy wax un juge des libertés maanaam juge boo xam ni dafay nekk un juge du siège koo xam ni euh, farul fenn parce que procureur tëjul kii tëj tay moy le juge ki nga xamni le magistrat assis parce que bo demee tribunal amna ñu wax le magistrat debout moy mhm. le procureur ak les magistrats assis les magistrats assis ñom ñom amul lenn lu leen lié ils ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi mhm. donc ñoñu tay nga xamni ne euh, japp nañ ko ni ils jouissent d'une indépendance absolue ñoñu tay kenn ci ñom lañu ñu jël ne ko yow dañ lay def un juge des libertés légui buñ ñu amatee nit koo xam ne yoon yoon daf koy top bu procureur décider ne kii kat dama koy top mm. légui juge des libertés bobu mom lañuy saisir ko mm-hmm. ah yow monsieur le juge des libertés euh, nit ki kat yoon daf koy top légui juge des libertés mom moy apprécier est-ce que jarna na ma décerner ben mandat de dépôt mm-hmm. mu dem turbine mu dem euh mu dem kaso. Hmm. wala bok est ce que kii dama koy bàyyi heure buñ ko soxla mu ñew hmm. donc loolu je pense que ni tey bu ñu au ce qu'on appelle le juge des libertés. oui a Hadj Assane jàpp nañ que ni. Euh, en quelque hmm. sorte dinañ régler. le problème voilà dinañ régler le problème. bien que problème euh, bi gëna yaatu fu ne ci nit ñi la ci ci ci ci doxalin la ci ci système la etc. D'ailleurs, wa ailleurs waa euh, en quelques secondes rek ndax ma ngi am benen gan professeur Lamane Mbaye mom d'ailleurs d'ailleurs, mon nañ ko lool.

waaw man man li ma jàpp mooy que ni sànq ci sama njëlbeen kàddu wax naa la ko justice boo gis dañ koy gën di en fait euh, dañ koy consolider l' indépendance de la justice. mais euh, am na ay jéego yu bari yu ñu def. Ah, ci sa gis am na am na am na am na ay acquis yoo xam ne. Mm, parce que El Hadj mm, Assane sànq mm. yaa ngi koy wax. xam nga tey boo demee tribunal. le plus chaque jour que je fais ñoo ngi rendre ay décisions yoo xam ni xëy na justiciable dañ ciy gis seen bopp. donc maintenant peut être y' a certains cas yoo xam ni quand ça concerne des hommes politiques. ci la tool yi di maintenant nag foofu la ñu war a xool léegi. Mm-hmm. naka la ñuy def ba gën ko ba gën a ñoŋal. li nga mm-hmm. xam tey moom mooy suñu justice parce que il faudrait que aujourd'hui li li jur euh, yakum crédibilité justice bi ñu xex fo à ce niveau là. voilà ñu fexé def de telle sorte que nit ñi parce que la perception. Mhm. des citoyens. Mhm. Euh, des citoyens la perception des justiciables dafa am solo. justiciable li ñuy ñaxtu nan justice bi amul indépendance justice war nañ gëna a indépendance am. Mhm. fofu lañu wara mëna a mun a xool moo tax tey bi nga xam tay UMS ñong koy def. Euh, parce que bon xolé da ñoom dañ ni état de droit et indépendance de la justice. quelle perspective de réforme. c'est-à-dire naka la mëna def tay euh, indi ay réforme indi ay coppite yoo xam ni. Mhm. dinañ gën a ñoŋal li nga xam tey moom mooy suñu indépendance de la justice. parce que bu ñu waxee indépendance bu ñu waxee indépendance de la justice rek. Mhm. yaa ngi yaa ngi dëggal euh, dafay aboutir dafay dal ci li nga xam tey moom mooy. état de mhm. droit am na waaye am na lu voilà donc réforme yooyu nag El Hadj Assane. dafa nekk ay réforme yoo xam ne il faudrait que ñu def ko xam nga déjà ñun yàgg nañ wax que ni euh, le principe de l'inamovibilité par exemple El Hadj Hassan. muy principe bi nga xam ni c'est un principe fondamental. ñu càmbar ko tekki ko ci wolof ci wàllu. Euh, magistrat yi waaw principe de l'inamovibilité mooy hmm. principe boo xam ne magistrat bi nga xam ne mooy atte le hmm. magistrat du siège kooku dañ ni dañ koy jox garantie boo xam ne tey kenn du ko mun a affecté hmm. tant que moom joxewul li nga xam tey moom mooy consentement maanaam kenn a sanctionné jaar ci affectation voilà parce que dañ jàpp que ni ñoom peut-être bu sanction bi nga leen mën a defal mooy que ñoom nga affecté leen nga jëlee leen seen lieu yóbbu leen beneen beneen lieu donc ñu ni ñoom dañ leen di jox lu mel ni mbaraanu kiiraay muy principe de mobilité maanaam. Mhm. Mhm. principe boo xam ne tey pour mu mën leen euh, euh, déplacer. il faut rek ñoom jox leen. seen du am benn épée de Damoclès bu leen. voilà dara du leen tiital. mais principe boobu déjà El Hadj Assane boo xoolee parfois dañ koy contourner. Hmm. ci naka lañ koy contourner mooy boo xoolee euh, quatre-vingt pour cent des juges ñi si ëpp ay intérimaires lañ hmm. ñi si ëpp nekkuñu ay titulaire ci tribune ci tribunaux yi ñu nekk. ok maintenant nag El Hadj Assane bu fekkente ni yow nekkoo euh, euh, titulaire. Hmm. pour nga mën a bénéficier wu ci principe de l'inamovibilité dafay poser problème. Ouais, ouais parce que quelqu'un qui n'est pas titulaire Eladj Hadj mhm. mais su ma lay affecté. Donc, Donc a peut prétendre ci y yi non voilà mhm. donc je pense que ni nekk na mhm. ay ay ay jéego yoo xam ne xëy na. war nañ ko mun euh, <laughs> voilà malheureusement Babacar waaw <laughs> waxtu wee xaw xat rek. mais MashaAllah. allah may daanelee rek El <laughs> Hassan, man dama bëggoon euh, euh, il faudrait que tay les autorités judiciaires les autorités étatiques. ñu xam que tay il faudrait que ñu dem ci ay réformes. pour que gëna ñongal li nga xam tay moom l'indépendance de la justice déjà boo xoolee créé beli ba léegi kenn waxatu ci dèjà boobu léegi ñoo ngi doon wax que ne il faudrait que ñu réforme ñu réformer ko pour ñu mhm. mën a indi le principe du double degré de juridiction mhm. parce que tey au niveau euh, de la CREI mhm. euh, bu ñu la attee amoo benn sañ-sañ pour nga def lu ñuy wax un recours effectif maanaam nga saisir un juge d' appel pour que mu mën a ñëwaat dans le fond de l' affaire li nga mën a def mooy nga dem au niveau de la cour suprême te cour suprême boo ñëwee forme bi lay xool du xoolaat droit bi donc yooyu yëpp c' est des lacunes yoo xam ni jàpp nañ que ni buñ ko defee xëy na dinañ gën a mën a ñoŋal li nga xam te moom mooy euh, la question de l' indépendance de la justice mais également les citoyens ñoom aussi ñu indi li nga xam tey mooy seen participation parce que mm-hmm. justice ñun ñëpp ñoo ko moom même ku nekk boo amee idée mm-hmm. da ko war a indi ensemble ñu xool naka la ñuy tabaxee pour que suñu justice mu gën a mën a nekk bañ a taxaw fee rek yow tamit di di xastante rek mais au moins ñu waaw ñu def ko ab xeltu intérêt tey amul kenn suñu mm-hmm. amul intérêt à ce que ñu fragiliser li nga xam te moom mooy l'institution dëgg la ndax benn ci jën la yu téye mbaal mi jërëjëf voilà kenn ku nekk si ñun def wareefam pour ah. que merci Babacar Babacar Ba ñukoy gëreum bu baax diko sante forum du justiciable waxna euh, justice euh, assemblée et cetera ay ay de yu avons mi waxtaan kay moy nees def ba yi euh, daanu ay max bañ ba mu faf ndax ay bu laman ma ngi lay ziar. ma ngi lay ziar bu baax. <laughs> mais professeur yaa sant yàlla te nag yow ngi lay ziar Mbaye jërëjëf. maa ngi lay ziar Guèye maa ngi di nuyu auditeur u rajo Futur Média. Mhm. ci Sénégal ak ci bitim réew di ko tàmbalee ci sama wayjur nga xam ne moom day sa fan moom mi ngi lay déglu ca Kébémer ah, alaaj jaajëf macha allah maa ngi koy ziar Mbaye. <laughs> jërëjëf affaire ah, Kébémer xam nga sama première ati école élémentaire. waaw primaire fa laa ko defee. ci Kébémer ah googu de. Ah, ak directeur bu ñu wax Doudou Samb loolu yàgg na. mais mais kooku mooy tonton Doudou Guèye Samb. yow Doudou Guèye Samb kon kon man Kébémer laa bokk. Ah, fa nga fa nga bokk fa nga bokk. macha justement euh, bokk googu ñëpp mu bokkoo Sénégal euh, man ndax yow ak yow histoire lay wax dama xam ni comme nit ñi ñoom ñu bari amuñu xam-xam mais comme rajo ak télé yi ku jóg ñu jox la kàddu wala ku mu neex léegi ak internet nga bind daal di sànni wax ci wàllu waaso ethnie tas suñu réew mais ñi am xam-xam xam démbu euh, Sénégal ak fi ñu jaar ba tey ak lii nu am tey ne ak jàmm du rek lu lu tëb wadd suñu kaw

Euh, boo liiree historien yi nga xamné ni ku mel ni euh, professeur Boubacar Bari mhm. wala borom xam-xam yu melni professeur Cheikh Anta Diop ñom ñëpp nangu nañ ni Sénégal euh, lépp loo xamni ni na fi ci walu xéet ñi ngi bayiko ci vallée du fleuve Sénégal mhm. dëkk nañ fa lu yag mom la wax la vallée di hmm vallée du fleuve Sénégal Bobu Sérère joola Alpular ñëpp dañu bokkoon ndey bokk bàyyi bokk nek fa lu yàgg a yàgg a yàgg lii ñuy wax tey la parenté à plaisanterie wala ñu di ko wax cousinage à plaisanterie. Mm-hmm. muy kal gi nga xam ne moo nekk ci suñu diggante ci ay sant. Mm-hmm. dégg nga maam ci diggante pulaar ak séeréer wala ci diggante samb ak mbay ak wadd ak mm-hmm. noo ko mën a déggee. ñooñu ñëpp dañoo bokkoon nekk Alaaji Asan pendant très longtemps ñu nekk ci société boo xam ni dara yàqu ko. Euh, borom xam-xam yi am na ñu wax ni bi lislaam ñëwee. am na ci ñoo xam ni dañoo bañoon a tuub.

mais lu ci mën di am rek mooy Sénégal benn bopp la boo xam ne kenn mënu koo xar ñaar foofu la jóge donc loolu bu fekkee ne am nañ ko ba nga xam ni tey jii kenn mënut ta xas sa morom. Mhm. wala képp koo xam ne aussi gis nga sa morom mbokk ngi ci moom. loolu yaakaar naa ni El euh, Hadj Assane dafay mhm. am loo xam ne am solo la. tey boo nee par exemple wolof. Mhm. koo ne wolof day xalaat Njaajaan Njaay. mais jaa Njaajaan Njaay benn Ben Oumar Ben Tachfine mi ko jur. mais mais mais Fatoumata Sall mi nga xam ne mooy waajuru Njaajaan Njaay. Euh, Lamtoor Amran Sall ko jur. Mhm. kon tey jii buñ nee pulaar wala ñu ni wolof wala ñu ni séeréer yaakaar naa Sénégal dafa am benn fondamental boo xam ni waruñu ko yàq. loolu moo tax tey foo dem tey jii boo gaañee nit it boo ko seetee sa mbokk nga fay fekk. Mhm. boo xulóog nit sa mbokk nga fay fekk. Mhm. donc damay wax toujours ci suñu émission yi ni mag ñi buñ ñu gën a gore. ndax mag ñi liggéey nañu liggéey boo xam ni ba teg ko ci suñu loxo ñun war nañoo fexe ba. Euh, defaraat ko ba mujj ba bañ a mujj poussé ba mu réer. Mhm. war nañ ko mën a teg ci loxo yu wóor. yoo xam ni tey jii euh, médias yi bari na. Mhm. nga ko sànq réseaux sociaux yi bari na. Alaaji Assane dem nañ ba nga xam ni mbokk day bëgg yàqu. Mhm. tey jii boo ñëwee ci kër. man ngaa nuyoo lu yàgg yàgg kenn du la fay ndax kenn ku ne yaa sa portable. dëgg la wala ñu ne kii sax moom da da nga leen di sax fatt bu fekkee jàmm sante gi dafa yàgg boo amee yitte dëgg daal ci gàttan am na ñoo xam ne ñoom dañuy di jàpp ni daal yow da nga leen di sax perte loo seen temps. mais nga leen di da nga leen di fatt. Mm. Euh, da nga leen di da leen di sax euh, euh, jaaxal ndax tey jii télévision bi ngay taal sax. Mm-hmm. mais kenn dootu ko seetaan kenn ku ne yaa ngi sa portable. dëgg dëgg la tey jii am beneen éducation boo xam ni professeur Iba Der Thiam yàlla na yàlla yokk leeram. amiin dafa waxoon ni tey jii kër gu nekk am na maam joo xam ne ma nga fa sampu tey. Mm-hmm. maam joo xam ne li muy wax. bu fekkee ni say doom ay question la ñuy posé yoo xam ne mënu ko répondre su boobaa société bi day yàqu complètement. Mm-hmm, mm-hmm. Alaaji Assane bool bi ñu daan bokk ñun ñëpp ci lañ daan bokk di waxtaan di di di Euh, professeur Djibi Diakhaté day wax ne sens interdit ñu ngi koy jëkk a jàngale ci bool bi. Mm-hmm. am na foo war a jaar am na foo war a yem am na fooy tege sa loxo waroo wax waroo nangam loolu lépp ab yar la woon. Mm-hmm. ñun bi man de maa ngi fàttaliku ñaagaan gi nga xam ne sama maam bi jur sama baay fa la nekkoon ku ci mas a yeewu néegam ci boppam da ngay ñëw fa la ñuy xellee café gi. kër gi yëpp danañ daje ci néeg bi kenn ku ne li nga fanaane danañ ko xam. Mm-hmm. kenn ku ne danañ waxtaan ak yow danañ la la yokk fulla danañ la yokk fayda di nga loolu nag su fekkee ne xale dem na ba amatu ko. loolu alaaji Assane musiba lay doon. maintenant li li li safaanoo ci mbir yi contradiction bi am mooy Sénégal bii nu bëgg dañ koy jàngale ci sunuy école xawma ndax xam nga fi may waxee mënoo. xam naa ko bu baax. voilà mënoo am ay gone éduqué woo leen ci nenn ni bëgg réew mi mel nenn ni. waaw loolu xam nga. ça à dire que suñu enseignement bi war nañ ko tëggaat dugal ci mag ñu baax ñeeg suñu valeurs yooyu ngay wax waaye ñun xam nga lu ci bari ci histoire sax boo koy jàng ay reet lay jàpp di la jàngal yoo xamante ni yow maami jàmbur yoo xam sa yoon newu ca <laughs> xam nga xam nga loolu am na lu ñuy wax volonté volonté politique. Mhm. mais boo seetloo euh, euh, li ma la wax sànq ku mel ni professeur Cheikh Anta commencé nañ dugal ko ci programme yi. ah 60 ans après ñu toog naan Cheikh Anta en 2021 c'est-à-dire ñun eh. tamit ñun tamit kenn xamul lu nu. <laughs> non loolu loolu dañuy dañuy accepté ni yaay yaay beaucoup de lenteur. mais bien sûr bien sûr loolu bare bare mhm, mhm. loolu euh, dañuy wax ni yokkamti ku yokk na taxawaay waaye boo tooxee dellu fa nga nekkoon. <laughs> am na loo xam ne kenn mënu ko dundee je suis très d'accord avec toi man mii di wax ak yow. <laughs> sama thèse de doctorat civilisation de l'oralité France bibliothèque mais nun am na ne crise il faut que ñu ñu ñu ñu dem diko bindi di tek diko euh, c'est l'histoire générale du Sénégal bobu ñu doon bind yu am solo la euh, mais boole ci ñañ ci wara boole et cetera ca ca ñu wañi polémique yi xulo yi ca ca euh, yokk point de convergence yi c'est-à-dire tey boo woote woon penc ca la ñuy ca la ñuy njëkk taxaw moy yéen jubóowul manam fas mu doon polémique nak yak yéen jubo nak et là je suis très d'accord avec toi polémique du ñu yobu fenn. Hum. mais bu ma sañoon aussi am na jéego yoo xam ne def nañ ko gis nga kilifa yu bari yi ngay dégg tey jii mhm. bari na tey jii philosophie morale des wolof lu ci bari bari bind nañ ko ba tey jii boo demee université lu ci bari mu ngi ci biir mhm. rafet na tey ñu xool nan nañuy génne téere yooyu ok élagenta ni koy jëfandikoo lu baax li moo ëpp lu bon li mais lu baax li kenn du ko wax dëgg la dëgg la il faut que ñu am des des des des des des yoo xam ne fa lañ ko mën a waxee mhm. il faut que ñu am foo xam ne fa mën a waxee lu baax li

Amadou Mactar Mbow bi ñu doon jàngale barki dem rek téeméeri atam ñu di ko feete mhm. mais boo seetlu Amadou Mactar Mbow bindam yëpp ci loolu la jëm mémoire d'emprunt kenn mënut a jël xelum jàmbur dëgg la dëgg la minu jàmbur kenn mënu cee tàqamti ko mhm. li nga xam ne bind nañ ko ci ay thèse de doctorat li nga xam ne bind nañ ko ci ay livre li nga xam ne def nañ ko ay recherche nañ ko bool ci làkku réew mi mhm. tasaare ko ñëpp am ko inspecteurs yi ñu jël leen dugal ko ci programme yi ñu di ko mm. jàngale wax nga dëgg am na solo foog ko jàngale ci école yi mm. Mm. parce boo jàngalewul ci école yi loolu maami jàmbur mm-hmm. la ñuy jàngale et comme macha allah valeur yaa ngi fi yu baax macha allah léegi nag ñu jeexale ci wàllu état bég ko war ci taxawaay aussi parce que nit ñi ginnaaw yeete gi ginnaaw waara waaree gi ginnaaw waxtaan yi am na ay tërlin ci penc moo xamante ni kenn bañ ko ñimee dépassé xam nga am na réew yoo xam ni ñi moo faa taxaw di wax loo xam ni dafay dafay nësaxal Ben réew ma cohésion nationale lu tax Sénégal nit sañ fee wax yenn yi am na ci réew yoo xamante ni boo fa demoon ñu am lu mel ni ayu Casamance doo fa sañ a waxee nen ni yow xam nga xam nga Assane kilifa kenn du ko jiital di ko fakastal mhm. fragilisation euh, autorité baaxul fenn mhm. gis nga euh, kilifa yi nga xam ne ñoo ñu jiite ñoom lañ jëkk a war a jox cër ñoom itam ñu xool ñi ñu jiite je crois que dafa am loo xam dafa important loolu mënut a ñàkk ci société. Mhm. il faut que ñu respecter l'autorité d'abord. loolu il faut que ñu delloosi ko ci réew mi mënut a ñàkk ba àddina sosoo ba ndëgë ni loolu moo am mais une une autorité mom c'est à elle de se faire respecter c'est-à-dire ci doxalinam ci waxinam et cetera bu ko defé même sa cœur do tok nan sa wa kër respecter len ma ni ngay doxalee la ñu xamni ki moy suñu kilifa. je suis d'accord avec toi mais gis nga El Hadj Assane autorité ci bopam mm. euh euh je crois que yàlla moko ko jëkk jox cër. ciir bobu nak il faut nga jox ko ko d'abord je crois que c'est important. non lol mom juboo nañ ci. mais mais ci walu doxalin yi aussi dama xamni amna lo xamni waxtan ak yété rek mënu ko faj ay tëralin ay loi mo koy faj.

ak ñeent fukk def ko ci programme ci ay xale ba pare ñu génnaat di loolu loolu moo tax mu ne nañu joyanti nañu réorienté mm-hmm. lépp loo xam ne defoon nañ ko nañu xool ndax loolu ñu yëkkati woon ndax egg na ci xale yi mm-hmm. nañu xool ndax loolu ñu yëkkati woon am na njariñ ci xale yi programme yooyu yëpp nag ñi ñaa ngi koy càmbaraat pour xoolaat ba nga xam ni yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoo génnoon danañ dem ba gis seen bopp ci programme yi nga xam ne génn nañ ko lépp mën a dellu ci jàmm te loolu ah. yaakaar naa ni borom ah. réew maa ngi ci yaa ko tudd borom réew mi ak euh, ñi fare ci geneen wàll ga ndax autant on reproche à l'opposition notamment Ousmane Sonko parfois di fay jouer ci un peu wàllu Casamance geeg yooyu autant ñi fare nguur gi dëkkee Matam wootee meeting di làkki pël xam nga loolu aussi bu yàggee nag bu waxul joxoñ ko lol euh, tasug rew fofu lay tambalé je pense que euh, kilifa gi warna nak taper sur la table quand même que lépp delluwaat nag fa woon ñu jital ay xalat ak ay tëralin ak ay stratégie tek ci wet ga suñu demb ak suñu mam ndax nak kenn mamu kenn gënul maam kenn. pourtant man de El Hadj Assane yàlla moom a ñaari malaka ñoo nekk ci sama mbagg. Mm-hmm. man ma dégg dans le discours bi président def d'apaisement apaisement. Mm-hmm. mu ni nous sommes une nation de sang mêlé nation la bo xamni ni deret yi dafa jaxasoo. Hmm. loolu yaakaar naa ni ku ci bëgg a nak nag Alaaji Assane di waxaat di wuti feneen. dafa hmm. am leneen lo bëgg. mais je crois que discours bobu mu tenir nous sommes une nation de sang mêlé. loolu dafa wan ni Sénégal dañoo bokk ndey bokk bàyyi sant ak lépp dëkkul. mais léegi ay xeetu rappel à l'ordre du ci baax léeg parce que nag <laughs> ah saa yi nag <laughs> moom mooy fale ah. <laughs> mooy mooy li ma la waxoon. boo falee nit ki nag gis ni kii nag ay waxam saa su ne day day yëngal sama réew mi ca bu réew mi yëngoo ci moom lay njëkk a yëngoo nag. gis nga El Hadj Assane sociaux yi nañu ko gën a xoolaat xool liñ ciy def. Mm. télévision yi nañ jël discours yi ci war a def ñu di ko def. Mm-hmm. li ñu war ñu war a déglu ñu di ko dégg xale yi li nga xam ne leen ko wax ñu war leen ko wax mm. mais bu ñu ne recul kenn ku ne di wax loolu bu yàggee day wax jey bari mais kenn du am looy dégg discours yu jaxasoo la parce que am na ñoo xam ne amuñu intérêt pour réew mi ne ci jàmm. Mhm. mais nag am li ma la waxoon rek. waaw sëñ Tuubaa danoon gisuma lu ko gën fii. Mhm. jàmm lu dul jàmm jàmm ko gën. dëgg la dëgg la dëgg la la toogee di waxtaan man ak yow ci téléphone. <laughs> dañ ko tal dañ ko tal moos am na période boo xam ne kenn ku ne yaa ngi wut foo dugg. dëgg la wala leneen loolu lépp dafay wane ni

war ci place yi war ci gatal lolu mo am solo jerejeuf professeur. jerejeuf El Hadj jerejeuf mbay Mbaye lay gërem amone mbekté lool and ak mom professeur Lamane mbay di len gërëmati di len sante ke sa su ne Abdou jerejeuf xamna as ci auditeur rek bala ma service commercial wala <laughs> Abdou déssewuma dara dañ may méré de demb duggu ñu bàyyil ñaar ba ñatt duggu 88 628 14 14 avant que ñuy wéy ci njaay mi ak programme bi xalaat sa leen di xaar ak dëggantaan ak xibaar asalaamaaleykum asalaamaaleykum. waaw El Hadj Assane. kooku. waaye xanaa nit euh, kooku dañuy boy boy Thiès la. Martin Mangane. ah Martin il faut nga présenté wu nag ndax newuñ ci télé gisuma la. Ah. du télé de rajo la. démb démb mere nañ la parce que émission bi amul te dugg nañu ba crédit ba jeex mais garaawul. ah ma defoon jàng jàng ngeen lu bari ci professeur Thiam li mu wax ba sax ma indiwaat ko tey yoon wi. auditeurs yi ñu à la demande générale man xam may damay damay rek déglu du ma déglu ah, ah. waaw mais ñu ngi lay ziar. <laughs> jërëjëf Martin di ñaan si barke Seydi Aboubacar jour anniversaire yàlla na fi yàlla sotti jàmm amiin yaa rabbi yàlla tas ñu si barkeem. amiin si barke Serigne Babacar Sy El waa di wax ni rek euh, ñun artisan yi. ñu war nañu gën a dal may suñu ministre bi xam nga ku ñu fal trois mois. Mhm. amagul oto sax amul kii nañ ko may mu dal parce que yéene gi mu am si artisan yi ñu xam nañ ko recevoir nañu. Mhm. Alaaji San démb gars yi commencé waan nañu jot cent cinquante mille. Mhm. te loolu am na lu mu mën a faj. di leen ñaan ñu gën góor góorgóorlu kon ñun artisans yi nañu may tuuti suñu ministre bi muy docteur Pape Abdou Ndiaye ñu may ko daal trois mois kuñ ko fal amagoo ay moyens bés bu amee moyen incha allah ci kattanu suñu borom bépp artisan di nga gis sa bopp jërëjëf merci Martin 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum asalaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam xam nga alaaj Assane waaw sëñ bi Pape Cheikh la fii ci Thiès. waaw xam naa ne da nga saw sama gars yi suñu toppantee waaye. <laughs> saa yi waroon naa wax benn dëkk ñaari gaar. <laughs> <laughs> parce que loolu ko gars yi di ko. man de gars yi dañ ko wax benn dëkk ñaari gaar. ah moom Martin ah. dafa dañuy bañ mu ah. yàq turu Thiès. dañ may mu yàq turu Thiès. Thiès dafa am lu ñu ko ràññee. Ah. benn dëkk ñaar gaal lañ ko xamee. lu ma ci wax rek ñu ne damaa far Thiès moo tax naa bàyyi seen biir rek ngeen waxtaan. <laughs> mais man dafa dafa dox ci sama sama sama wax. Uh-huh. parce que li li mu wax laa doon bëgg di di di wéral xam nga. Mm. te démb ñu bari dañu dañ ma woo. dama xamal ni jot nañ ñu ngi commencé di jot ci cent cinquante mille te def naa ne artisan yi. loolu bokk na ci seen i jàmbat. Euh, di wax ni di wax nag ñu gën a dalaat dal bi dal bi rek surtout ak sortie yu bari yi nga xamante ñu ngi koy def te sortie yooyu du jur dana lu dul ay ay fitna ay sortie moom boo dee mm. sortie di kaas di kaas te li ngay wax yow mm. leer na la ni kii nga xamante ni fal nañ ko toogagul da koy may as tuus dafa am grâce loo mm-hmm. xamante ni mu nga falee am na tuuti moment boo xamante ni ko may trois mois mu état euh, mm-hmm. mm-hmm. dem na ci dëkk yëpp siwee na na xool na jafe-jafe yi bu amee moyen commencé liggéey loolu loolu moom nit ñi daal ci rek Oustaz Idrissa Gueye di ko gërëmaat encore une fois eh. kii waaw dañ la koy yóbbu yóbbante parce que mi ngi dimbali artisan yi tamit loolu mu ngi koy wax baax na yow it def waaw wax na wax nañu ko wax baax la Gueye ma koy gërëm le ministre di ko encouragé ni ko fi mu jàpp baax na mm. góorgóorlu te dimbali artisan yi te le président Macky Sall may jox ko ay moyens tamit ah. loolu dina ci am solo leen di gërëm baax di leen sant bien ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp Abdou jërëjëf di jégalu ñu des ci serveur bi xam naa du ñàkk ëllëg incha allah